waaye duñ ko def comme Mimi ture mais ba ma xoolee ci li ñuy woowee règlement intérieur assemblée nationale dafa leer ci yenn pàcc yi parce que par exemple bu ñu xoolee ci article vingt et vingt deux ak ci chapitre euh, huit euh, ci lu soxoon mbirub député non inscrit article vingt trois article vingt et un ci biir li règlement intérieur assemblée nationale dafa wax ni président groupe parlementaire yi membre lañu ci conférence des présidents. en cas d' absence mu dellu si ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko mën a euh, wuutu mais ci article vingt deux bi ak vingt bi moo ñu importe moom mooy lii ci am euh, lu ñu war a wax vingt bi dafa ne modification bépp bu ñu indi ci composition groupe dañ koy porter connaissance su président assemblée nationale ci signature député bi ci boppam bi nga xam ne moom euh, la mbir mi soxal bu fekkee ni démission la. su signature président du groupe bi bu fekkee ni radiation la maanaam ñu génnee la ci wala ci double signature député bi ak président du groupe bu fekkee ni adhésion la wala apparentement muy maanaam bu fekkee ni da nga bëgg dugg ci groupe bi maanaam bokk ci mais ci 23 bi ci la ñuy dellu ci député non inscrit te député wu réew mi moom dafa fësal ni moom génn na ci groupe parlementaire Benno elle devient de facto député non inscrit loolu la règlement intérieur assemblée nationale wax waaye nag entre règlement intérieur assemblée ak euh, mbirum politique yenn saa yi day am benn glissement boo xam ne kenn du xam fu muy mujjee parce que gis nañu ku mel ni Mimi Touré ne ni man bokkutuma ci euh, li nga xam ni moom mooy groupe parlementaire Benno fa mujjee mooy déchéance dañu dindi euh, li nga xam ni moom mooy mandat wu député mais en tant que député am nga sañ-sañu ne ni yëgatuma sama bokk ci groupe bi comme yëgatuma sama bopp ci groupe bi député laa dañ maa fal comme ñi ñu fale ñeneen ñi am naa sañ-sañu ni génn naa ci groupe bi mais ba ngay génn ci groupe bi euh, da ngay mujjee doon député non inscrit mais ci wàllu act yi ngay posé ñenn ñi mën nañoo jàpp ni kii def ñu nar a sonal c'était le cas pour Mimi Touré ñu ne kii génn suñu groupe rejoindre groupe parlementaire yeneen yi opposition yi mais nee na non inscrit la mais li wóor mooy acte yi mu nar a posé ci biir assemblée nationale day mel ni dafa bokk ci opposition est-ce que ce sera le cas pour le député de Rewmi euh, ou la députée de Rewmi c'est l'interrogation ak lan mooy doon na euh, ko euh, waa Benno Bokk Yaakaar sur le plan politique di accueillir est-ce que dañ nangu mu dem féete ci opposition et surtout et ce que opposition nañ nangu moom mu ñëw féete ci ñoom parce que tamit il y a ce double cas ndax réew mi ba léegi déjà njëkk nañu indi coow en disant que man maay chef de l'opposition opposition bi d'accord ñu est-ce que léegi député opposition enfin député réew mi génn nekk non inscrit day rejoindre opposition wala euh, Benno ndax dina ko nangu est-ce que opposition dina naka nangu de 83 députés maintenant c'est 82 ak li nga xam ni moom moo juddu euh, ci euh, diggante le président Macky Sall ndax moom moo ko andi ak Idrissa Seck ak ki nga xam ni moo di Marietou mi nga xam ni jamono ji nekk na député.